mu jaay salaamaaleykum mbokk ñu topp ci internet Leewtoo TV di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour tey nag ñu ngi fii Golf Sud kan lañ fekk si fils de Double Less doomu Géejawaay doomu Casamance kooku di Salif Sakho nee naa la ñu naan la ca bàyyi doom a koy jël waaye la ca mag rakk koy jël ba tax na Balla Gaye numéro 2 ba mu fi jógee bàyyiwul dara mu réer puso bi mu ngi ci loxoom ba tax na Sa Thiès neen damay doxal lu sama mag bàyyi woon ci lu baax dama koy continuer kon tey ñu ngi fii vingtième jour koor mu daal di mooy ndogu mag mag a mag kan moo ko organisé nee naa fils de Casamance l'enfant de Golf Sud kon damay nuyu waa café gi rek su ma paree ma daal jàll ci champion bi nuyu ak moom salaamaaleykum sëñ bi nuyu naa la. waaw ci ndogu. ndogu li ah la ah, joxe ndogu berne gars ñu ndogu ba suur. ci gi waaw peete si café gi waaw. lan lan lay am. café gi day am jar day am xorom pool. ñun murid lañu. waaw ah, bis bi waaw ñu koy waajal ñu ngi di ko waajal maa waaw tey la guddi maam Seera Fall waaw instant moom waaw dara manqué waaw yàlla ak yonente bi rek moo tax ñu gën ak Seera Fall waaw. Sathies del Combat diggante ma ki xam te ne moom Moussa loolu. mais loolu ñun pare nañ suñu tëddee dañuy nelaw loolu du combat sax parce que Sëñ Tuubaa loolu du combat Sathies war nañ mën nañ ko jox keneen mais pas pas ay booy booy ay Moussa Ndoye ñun nelaw nañ bu yàgg ñun xalaat ñun fàtte nañ ko sax. ko sax barke sëñ Touba xam naa ne Sa moom nit moom ah mooy na ko ardo moom Sa Thiès du ay booy yi quoi dëgg yàlla laa ilaa Mansour waa café gee ko wax kon dañaa jéggi jéggi am nga jéggi dañuy dem jéggi question yay gaaw na jàkkaarloog borom bis bi ah nee naa leen koo doomu Casamance doomu Guédiawaye doomu Golf Sud fils de Double Less frère de Balla Gaye numéro 2 sama kanam salaamaaleykum gars yi bëgg naa leen de. champion bi nuyu naa la. ah. merci yaa ngi noos. koor. waaw ah, neex na de. séeréer yoo xamante ne moom xam naa ne moom métti koor ku ci mbër. waaw mbër dañuy woor la. waaw. xam nga mbër yi mooy loolu. dañoo du jàpp nag du am na xam naa ne moom bëgg nañ lekk trop mais du ñëpp moom. Lac Rose ku bëgg lekk la. Lac de Guiers bopp lekk la. Lac de Guiers bëggeewul lekk dang sa ku dama koo yërëm la puncheur la. ban waxoon. ku bëgg lekk la. ah dama dama dama dama jëlee. Eumeu naa mën a septendre ma lay lekk waaye daal ragal naa ko bëgg lekk la. waaw xam naa ne moom daal ci des na moom garaaw ñu ñeme koor lañu. Salif Sakho ñu ñëw fekk ko fii mu toog ah, mu organisé yoo xam mooy ndogu jour guddi maam Cheikh Ibrahima Fall magam moo ko doon def daal di fi jóge raq dina du ma bàyyi puso bi réeré ci man lu baax la doon def lu baax loolu dama koy continuer ñu naan ko Lion Soo maanaam gaynde ngu daw lan moo waral nga continuer action bu rafet boobu sama dugg. waaw du dara xam nga dafa am yoo xamante ne atu la waaw jubluñu ci dara nag jubluñu ci dara yàlla rek a tax ñu ko te dañ koy def it kenn waaju ko parce que ñu ngi doon xool lan la ñuy def mais comme ngaa yi tamit wax dëgg yàlla lu ñëpp bokk la dañ koy waxtaanee rek wut suñu nag ray ko jéem a xool def ci ndogu mun ci daara ji ak jàkka ji di ci des ñu servir ko fi nga xamante ne mooy tali bi nga xamante comme tali bi moom ñëpp a fay jaar loolu dama loolu nuyoo la ah, daan ngeen teg fa seen loxo deux minutes dem ñëwaat ah, ah yaa ngi jàkkaarloog moom de. doom day Sa Thiès la. kii bu ne waaw Sathiès waaw lay wax bu ne déedéet Sathiès danaan déedéet Ngor dama lay bu baax waaw na de Mansour xam pare mën la koy dégg kël gi riis na waaw ah, kël gi riis na mais kël gi dañuy baaxantal rek dañ fa waroon def yëpp Sathiès def na ko kon xam nga dañuy baaxantal rek waaw Balla Gaye numéro 2 bàyyi ko fi kii di raxam xëy daal di loo ci moom bëgg dara la waaw lu leer naa la wax de loolu moom même bu ko fi bàyyil woon sax moom dafa war a ñëw def ko mu ko fekkee gars yi di ko def mu ñëw def ko dafa bëgg lu baax rek ci bis bi de laa koy dogoo yàlla ko yàlla may ndam waaw ni muy seddale xolu nit ñi tey jii nii yàlla na koy yàlla may ndam soobee yàlla tey li mu def nii dafa seddu xol jënd ay nag teg fii nii joxe génn say xaalis joxe ay ndugg xam nga loolu dafa rëy daal di ñun waaw yombul yombul ci nit daal. waaye kii di Moussa mu jàpp ne Sa Thiès dafa daw daal di ñëw ci moom na ci moom lay gën a yombee fekk na du yombee foofu. Sa Thiès warul warul lu yomb xale la xale xale du warul lu yomb xanaa xamoo xale du naaj xale lay néewi rek waaw. nan ngeen koy waajal Moussa Ndoye. waaw ni ñu daan waajal rek ni ñu daan waajal rek. ba la suur si ñaan yàlla yàlla may ñu ndam incha allah waaw mu ngi noonu ah doom day Sa Thiès numéro 2 moo ko wax jaajëf. ginnaaw ba ma leen nuyoo dañ leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet dañ ñuy topp ci Leewtoo TV à chaque fois comme ni ma leen ko waxee rek saa su ne ñu dem kër champion bu ne toog daal di waxtaan ak moom ndogu ak nag beneen champion la dalal di Salif Sakho. doomu Géejawaay doomu Casamance fils de Double Less frère de Balla Gaye numéro 2 daal di toog borom fas yéene waxtaan ak ci ponk yu bari damay daal di def lu dul nuyu ko rek daal di wéyal ci biir Salif nuyu naa la. maa ngi lay fay sama jigéen sama xarida ah, sama natt <laughs> di nuyu ñëpp aussi waaye natt nga Amady aussi di nuyu ñëpp monde entier du Sénégal ñëpp bokk waaw di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp xam maa ngi leen jéem a contentement tey dalal la ci nga xam ne mooy ndogu ak sa mag ko def ay at at nekk fi tey yow nga jël daal di continuer daan def ci lu baax noo amee idée boobu. waaw idée bi ñëpp man sasuma ko waxta njëkkee ma ko sax ci waaw mais xam pare bu fekk loo xamante ni lu baax la te lu gën la aussi te dëgg yàlla tant que nit a am moyen bi rek yaakaar naa wax def sa kanam dëgg yàlla yokkute rek lañ ci jëlee. parce que ba muy njëkk ñu koy njëkk a def moom yaakaar toog ci ginnaaw di rek même pas deux ci lañ ko boo dem ci lañ mbooloo moom du tey dina am moom moo nekkoon njiit nekk njiit bi moo tax moo ciy ay nitam tamit di si jàpp loo am rek nga bokk ci sa doole loolu daal la yàlla sagalee ba ba rek daa mel Baye Fall bu wóoru quoi moo tax ay lay jàpp xam nga damaa wóor ma damaa waral Serap Fall. kaa jox kaa jox kaa jox kaa jox damaa waral Serap Fall dama koo waral. kaa jox damaa waral Serap Fall. damaa waral Serap Fall. déedéet ba def ni baax na. waaw xoolal sa nag bi nga jël ni mu tawee. xoolal nag bi nga jël ni mu tawee xoolal nag bi. ah xoolal lii. Badara lii la nii. saa yoo jël nag mi nag mi saf trop. mbër gi toroxal na la de. moom la toroxal kay. waaw yàlla baax na. mbar Baye Fall la moom. bi Seydou Fall bi la moom. ci bëgg ànd ak moom. waaw man ma jox ko addiya rek. dëgg yàlla borom gis. bis bi daal da ngi nii ay booy ndaw nga ci ñoo xamante ni yàlla xam ne seen doole seen pas-pas xam nga yàq seen temps lépp def ko ci mooy mooy yi nga gis seen ne ñi nekk ci premier taal bi ñu fi taal ñoom ñoo koy taal matt yi ñoom ñoo xëy di ko euh, gi ñu ngi gis seen propre mooy pour di ci màjjal sax ñu ngi <laughs> ñu ngi fi jàpp daan. jàpp daan que léegi daa est ce que léegi daal mënut a a daan. <laughs> Salif Sakho si noonu kii di Balla Gaye numéro 2 sama daal di jël ñaari avance li de Mbour ñu ne detawaay bu daal di jël kii di Boy Niang numéro 2 nga am foo leen jaaroon ndax nga gisee combat boobu. waaw loolu lamb la lamb la lamb neex la parce que dafay xam ah moment yi ñu toll euh, wax yàlla bu ci bu ne boole leen sax boole ko ci parce que carrière mbër dafa gàtt si la boole da bëri am ci am da nga ci yoon it waaw fa lañ fa la fa la toll. ñu jàpp ne Balla Gaye numéro 2 sport business lay def te noonu nag muy waaj dem li nga xam mooy fin carrière muy waajal génn làmb bu génn làmb yow fi bàyyi pare nga tuujal lenge yooyu. fin de carrière <laughs> du cest à a que xëy na yu jël moo doon jàpp ni fekk rek mais ñun bëri bi ñuy def nii pour lan la bëriwuñu pour kii dañoo bëri pour liggéey surtout loolu daañ xama investir ci mën a dimbali suñu waajur dimbali ci mbokk yuñ tane kon làmb ba ko tay seen yox business la ñu koy weddi dafa dafa dafa firndeel loolu laa gëm li ma gëm mooy yeneen avance boo ko nit amee jël ko parce que loolu mooy sa liggéey mi ngi mel ne tey nga ne yow da nga ne benn ab kii nga ab ab menuisier nga jox la benn sax jege na da ngay xaar ba bi pare nga dem jël beneen mais da jël dem jox ko keneen dañu waxante dëgg au moins da nga ñëme engagé wu mën a jël ay avance loolu moo gën parce que tamit boo fi toogee di ana balance teg lay teg lay avance ko gën boo ñaa dugg ci biir kër ga daar jàpp rax ji daan ñëwaat duggaat ci biir kër gi da ngay soññ sa mag waaw lu ma koy soññ man aw ma leen lu ma koy tiital boo ñaa dafa ñëw yëngal kër gi de duggaat ma ne ja mbëri gën a garaaw yëpp mbaa la koy te loolu lu ci dara lam moo bindoo noonu waaw lam moo bindoo noonu boo ñëw Balla Gaye làmb la Balla Gaye Bombardier làmb la mais comme Bombardier bi nga jege ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla may ko ndam ci ñaari combat dëgg yàlla ma gën a ñor dëgg yàlla Bombardier mu gën a ñor man mu nekk revanche bu am doole waaw Bombardier jàpp ne day ñëwaat mettre Balla Gaye à sa delloo bu waaw loolu la jàpp te dagg nañ ko bu yàgg léegi nag xëcc da daa mooy yaa ci boobu. xale maa gën a. non maa gën a loolu waxi loolu dépassé nañ ko sax li ñu wax kay mooy nan lañ koy daanee waaw loolu lañ tal dëgg yàlla waaw ay yeneen ci des moom sant yàlla. ndax bu dee doole alhamdulilah xel bi alhamdulilah bu dee wér bi alhamdulilah Balla Gaye ba mu doon bëri bokk na bii ma xam. Balla Gaye numéro 2 Lion de Guédiawaye nee nañ changement am na bu baax a baax mu ngi koy péré ca kañ jëm nag kalanc di Reug Reug benn entre parenthèse rek doomu sénégalais bi nga xam ne daal lañ ci fee ci MMA ba. MMA kii di Reug Reug dafa lanc fan yee passé ci MMA ban gis-gis nga ci am. waaw loolu du dara lamb parce que sport moo mel noonu. yàlla moom jagleegul kenn dund ci sport nga am cee ndam lépp leçon la ci moom baax na ci moom ci benn côté mais nag kenn yéene dëgg yàlla prochaine fois maa ngi koy ñaanal des carrière am dàq parce que ak lu a nekk suñu adversaire tamit nekk suñu adversaire teewul wax dëgg yàlla buy dem di jël drapeau Sénégal di ko yóbbu moom la ñuy gunge moom la ñuy soutenir maa ngi koy encouragé di ko ñaanal prochaine fois am lii des ci avenir am yëpp yàlla dàq li ci ginnaawam ci barke alxuraan. defet métti na te ko amul na xari la moom mu jàpp ne sax amul defet ba daan tax mu def recours mu ma koo bëriwaat trois mois ci kanam incha allah ban conseil nga koy jox. mooy mu góorgóorlu rek. muy muy bàyyi xel képp ki muy bëre na ko tubaab bi di ko xool moom muy jéem a xam ay adversaire parce que loolu ci la bokk aussi waaw moom mu mu mu jàpp ni sax mu balaa combat bi comme moom jeexal na ko yàgg loolu la ciy am waaw fukk noor xëy na xëy fukk xale bi tamit ci la bokk waaw kon nag li ci des nag mooy la ñuy def mooy na ci yoon xale la amul lenn lu muy ñaax. li ci kanam moom gëm naa ne moo dàq li ci a waaw mun na ci am dara wax dëgg yàlla. rek rek dégg nga loolu nee na bu demee fukk demal ak dal ak xel xam ne lépp àdduna lépp teranga la mu xam ko maanaam bu ko xamul mu di ko jàngat ci ay mbiram. ça veut dire que boo amatee adversaire da nga koy topp di ko xool xool lim ak lim mënewul nga mën cee yokk ci loolu wala nga wàññi ci loolu ci loolu nag entre parenthèse balaa ñu ñëw ci combat ak nga xam ne moom Moussa Ndoye sa diggante Garga Mbossé a rek loolu dong la yooyu béy ne leen Sa Thiès dafa ragal Garga Mbossé moo tax tout le temps rek day xool benn kii bu mu mën a def rek ba daal daw combat boobu parce que Sa gën te parce que tamit dañoo xam ne jàppoo ci man moom moo nangu kay lii bañal kii lii du dëgg waaw bañ ciy tudd sama cachet yooyu te loo xamante ni loolu nga xam benn façon wax la man defuma dara mais aw ma bi may toog di xaar garga man aw ko wax dëgg yàlla. Garga Mbossé ci mu jàpp ne préparation mystique pour Sa Thiès dafa metti dafay laaj budget ba tax na nanguwul yow li nga xam ne mooy moo tax mu delloo combat man su ma juumul ay ñetti combat ñeenti combat yooyu lañ la ma mosul la ma la ma la ma xaalis mais li des li li ñu dund maa maa kase ça n'a rien à voir li muy xalaat xam nga moo tax man mën naa bëri ku ma kase su fekkee damay xalaat moom loolu dama bëri ak moom dafa am te xamante ne du wax ju tegu dañu wax ne dëgg te yàlla tax moom na li jënd li nga xamante ni moo ko intéressé ndax kay dem di jënd tam ci njaay bi tamit wax dëgg yàlla li muy jaar rek lay jënd ah nañu waxtaan te yàlla jàpp ne yàgg na cher Garga Mbossé amul jàpp loolu la yàlla def mënuñoo xool suñu kase tamit. Sa Thiès tamit ñu naan la sa kase daa néew xoolaata sa bopp. li ngay xool sa bopp mooy sa encadrement ngay xool loolu moo raisonnable waaye bu xool Sa Thiès mi fayoo ah. man mënu maa daan di jël ay jël cachet yoo xamante ni chaque fois man mooy loolu mais dinaa xool lan moo ma manqué. na xoolaat moom estafam yooyu ndax mën nañ ci dara yooyu ñu joxoon lu ñu ko arrangé moo gën. estaf diggante Garga Mbossé ak Sa Thiès mu nekk dër bi parcelle unité 3 ak golf mu metti. bilaay du dër bi. ay at a ngi nii seen combat mun fexe ba taxaw heure bu ñu ne taxaw na rek am lu ko yàq. waaw moom moo daw loolu wax ji la loolu dong la moom moo daw moom moo daw combat bi moo nangu fee moo moo nangu 25 ñëw fii ba 20 25 ba njëriñ la ah dañuy wax dëgg de xam ne loolu arrangé ko mu daal di génnaat ci. ah loolu moom xaw ma ci dara dëgg yàlla man kenn du ma dugal. Sa sama nawla la sama adversaire la man ak lu mën a xew dara lu ñaaw du ma du ma doxal sama diggante mais nit moom gémm ko waxul dëgg wax fen du dëgg voilà. Sa Thiès Garga Mbossé l'avenir nous le dira combat boobu kañ lay taxaw xëy na ñoom ñaar ku ci am combat wala bu ñu bëree ba pare dinañ ci xam dara jëppaandaw ja lañ jëm nag Moussa xale bi lépp bi nga am combat bu rëy Salif <laughs> waaw maa ngi ci de ñu ngi ci te ay mbokkam sax laay àndal di entraîné ndax man ñi may àndal ñu papi lébu la seeni lébu la xam nga loolu El Hadj Faye mii lébu man kon man dama am dama am ay dama am ay xaritu mu dëkk dama fa may nit daje nañ fa xam na tëngeej bi yàlla xam ne ma fa am ay nit am ay lébu yoo xam ne dañ may jàppale te yàlla rek a tax barke alxuraan ñi ngi dëkk tëngeej bëgguma sax turam man kon man aw ma leen loo xam ne ma ko doxal sama diggante moom lu ñaaw mu ñaan jàmm suñu diggante maak moom mu ñëw ma daan ko jëlam yu am mu dem nii Moussa Ndoye ci ay na géew gi bu arbitre sifflé wàccee loxoom yi ñaar fay des it la may dara bi ci biir la yem man soxla ma may ma ndax man képp ku may bëre mu may ma mu may kay da koo man kay bu ma may dara man maa jël sama bopp loolu ma intéressé. jàpp na ne aussi da ngaa daw Sa Thiès ne moom moo gën a yomb moom mooy nooy neex bi waaye foofu dafa yombee de Salif ci ay kàddoom. Sando daf may sant di ma gërëm xam nga ndax bu ko jël woon ñi gën a suuf la jël te cachet bi mu ci man du ci keneen bu mu jàpp na ma waxoon dafa nooy de waaye dama ko jël pour daan ko. yow yow sa choix boobu la moo tax jël Moussa Ndoye. non parce que parce que dëgg la dàq nañu suñu combat garga bi am na coow lii ak lii moo ci am promoteur bi la arrangé wu ko du dem seeti euh, ci lu wax Yékini Junior après jow doxul mais man date biñ ma jox pour ma bëri ko moom ma gën a arrangé même bu dee damay jël keneen ku ci gën a suufee te noo ko jël bëri moom bu ñu saison bëri na ma mën a amaat doon combat waaw. ci noonu pour jël combat bu rëy <laughs> di nga ko def lu rëy ñaata séquence d'entraînement ngay def par jour. 2. ci koor gi. waaw. ñu koy def. léegi damaa gudd saala saala saala kii rek la saala géej. saala bi wóor bu fa di entraîné méttiwul. non non non dara newul. loolu gis nañu ko dëgg yàlla. bu ñu amuloon combat sax dañuy entraîné ci weeru koor. ñi for ci wéeru béy da ngay waaj demee INSEP bu fari bu Paris yàgg Balla Gaye numéro 2 dëgg la. non man dama ne maa ngi <laughs> waaw damay sëb su pare. maa fi laay préparé combat bi su passé dëgg yàlla après maa xool lu may def ba dafa jege trop dëgg yàlla. ci noonu ni ñuy daal tàggatoo muy préparé combat bu rëy te ku ne combat di nga laaj mobilisation est-ce que pare nga pour Sa Thiès. ah néew ko di gaa mais maa ngi baax a baax ndax am na ñu ma ëppale am na ñu ma ëppale kon nag loo am na da nga koy sant dinaa sabablu daal incha allah ñu fexe ba bi waaw ñoo ko moom ñu jël suñu mocce rek yëpp ci moom fees loolu moom ñu ngi koy ñaan yàlla incha allah te xam naa ne incha allah gëm naa ne dina am. muy noonu xam naa fa la ñuy jaaree ndar képp émission lan ngay wax Moussa Ndoye avant si lan ngay wax yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla defal jàmm may ko wéer a gudd fan yàlla may ñu talak fekkee ma daan la yël bu yomb merci. fan si. mosam wala sama mos. <laughs> yaa ko teree neex ñoom ñaar ñëpp. waaw ñu fair play rek xam ne ñoo bokk ndey ak baay na Moussa Ndoye ak Sa Thiès liggéey rek a leen boole jeexee tam déew dañuy sekkaat jàmm waaw waaw mais moom sama supporter ma ngi ñu ëppale fa rek waaw bu bu bu Moussa Ndoye andee ma andi trente mille. ñooñu ñan ngay woo. man ñu may woo bëri nañ de mais am na yoo xamante ni moom jërëma tudd seen tur waaw encore daal maa ngi gërëm ñëpp ñu may jàppale ñu may taxaw wax dëgg yàlla ngeen gërëm ñëp yooyu di la nuyu ak sa caméraman sama waaj maa ngi koy yóbbu centre boobu bu basket non non dara mu ñaax mbaa ñaax. Sali foofu la ñuy daal jaaree ndarke bi nga xam ne mooy émission bi lan ngay tàggatoo wee. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di euh, am kontaan ci yi nga xamante ni mooy ñi nga xam jàpp nañ ci yëf yi xam nga di sandaat baax a baax sumay waajur di la ñaanal jàmm yore gudd fan di ñaan mbas bi yàlla dindi ko fi. jéggalu baax a baax ci kàddu bi dama war a jiital ci ki ñi gën a àdduna yàlla yërëm leen te xaaral laa jëloon jiital doomu taay yàlla yëkkati leen. ñi caay féete ginnaaw yàlla leen caay féete kanam yàlla dafa jàmm ndax ko ñu mbas mi fi am te ak lu mu mën a xewet lii ma si bari yàlla buñ ko gisee ci barke alxuraan ñu ñaan ñëpp jàmm daa rawatina say bëggal sama sang bi di ko ñaanal jàmm ju bari ak gudd fan dundam gi am na njëriñ te noonu nag nee naa leen Salif Saxal woon dama ci jaajëfal bu baax ñu ñuy topp ci Leewtoo TV di sant sama caméraman Mansour Fall bég ci moom lool lool lool Sadio nee na nga dem Basket Dieng yaa ngi yàq li nga xam te ne mooy Leewtoo TV yi moom moo maa ne kontaan naa ci yow sama chauffeur bi loolu dawul na bëgguma caay ki yóbbul ñu ko mu dem Basket Dieng te noonu nag dama daan biig a ah, baax kontaan ci yéen lool lool lool di leen jaajëfal lan yoon di daje ëllëg ci beneen champion ci beneen gox incha allah di bëgg Salif Sakho ma toogaloon dégg nga li ngay bañ Sa koy bëgg bu baax kontaan ci moom ba beneen yoon